dikkati naa lu ne ma ne la lu ne am na ci gouvernement président ma Macky Sall bàjjo bi turbine yéene kaay naan man woon nañ ñu nag ci gouvernement goo xam ne fast track la xale ya di jaabaa jolle boobu terme réew mépp ànd di riirandoo fast track fast track fast track fast track ate sabar gu tas ñu ne déeta waaye man la Sall ne leen fast track tàbbil leen ko géej bëggatuma léegi nag gouvernement de combat laa indi ate ñu ne guerre moo ne day combat combat gi Sénégal fa mu ne woon ci xiif ci ndóol ci tumranke ci réew mi fa mu nekkoon ci yorin gu bon daal passé wu ko ñu ne ñu gouvernement bu combat lan la ñu xeex ci réew mi yéen kaayub dee média bi naan ko dara tey nag dañoo woo nag ci gouvernement de campagne tey nag laaj ba mooy mbaa duñ ñu andil gouvernement de campagne ndax nag élection présidentielle bi moom nee na jàmm suñu kanam wax ji wax ji mooy sàll ak njabootam taluñu lu dul présidentielle bi sàll tabub candidat am naan riir mi riir mi ma ne la amadu Ba moom laa bëgg mu wutuma bu ma fi jógee tur bi naan ko ndànk rek sàll ndax nag lii fal gémmiñu balaa yegg ci présidentielle bi nan dem ci gouvernement gi tas ngeen tasar gouvernement gi ñetti ngi nii askan wi di xaar ba tey France daal di xideem léttu leen nu leen waaye nag ñoo moom sunu xel moom sunu gémmiñ dañuy laaj tur bi naan kon yow sàll ma ne la ban gouvernement nga nar a jox sénégalais yi ndax Amadou Ba moom day toog fa yàllaahu waaye équipe bu bees bi nga xam ne Amadou Ba koy jiite président Macky Sall ndax nag dina soppi dundu góorgóorlu Elassane Sall naan kon soppi dundu góorgóorlu nag moom moo di réew moo xam ni lépp seer góorgóorlu sa ngéem facture courant jéggi jéggi góor góorgóorlu sa ngéem ndaw yi nga xam ne xëyuñu te léegi ñi ngi ci góorlu xale yi nga xam ne ñi ngi màngaani ndax dana dakk tey le seen bakkan si géej gi ndax ñàkkub yaakaar ci réew mi ndax nag Sénégal gii nga xam ne daanaka waxuma la sa këru bopp de waaye location daal nay metti ba jéggi dayoo ndax dina dakk ela san naan kon yow président mag Macky Sall sañ naa la laajit sa góor gouvernement gu bees gi bu taxawee yow Sall nag ndax yoon ma ne la dina jaareele mbir yi yoon ndax nag tëj beeg tëj gi mi ngi mel ni tulleeg ci réew mi kenn sañatul wax dinaa la laaj geneenu laaj elasan nay laaj de nan kon yow président Macky Sall ndax na gouvernement gu bees gii mënees na ci am yaakaar fukki at ak ñaar ngi nii ngay soppi coppet ci bii teg ci bee bee ne ko rajax waaye sénégalais man la gisuñu ci benn seen bopp bu ñëw daanaka mooy yées ba fi nekkoon yow Sall ndax bu mujj bii nga xam ne mooy sa sànni tàccu dang ci def sa kéemtalaay kattan ba mu jëmale sénégalais yi fa yaakaar am te yaakaar wi nag mooy laaj yi ma njëkk samp ndax sénégalais yi ma ne la laaj ci daan ci am tontu te tontu gi mooy doon waaw déet ma ne la ñu tàbbal leen géej fa yàllaahu moo tax turbine nankoon kon attention président Macky Sall yaak Amadou Ba ma ne la yéen a ngi bëgg taxawal loo xam ne bës bu sottiwul wala jaarul yoon day mën na leen laal ba ci présidentielle bi ko l'enquête jeen naan man leen de xamal naa la ko moom président Macky Sall day mi ngi ci haute tension nag ndax nag Sall dafa am ay bëgg-bëggam ay jege ñaale amadu Ba am seeni bëgg-bëgg dañoo bëgg nag daanaka bëgg-bëgg yooyee méngoo daal di tase wala it ku ci nekk ci ñoom ñaar daal di bàyyi intérêt moroomam topp wi gën te dogal président Macky sàll jël fi mu ne mën na indi ay conséquences ci présidentielle yi à tout moment te lii mën na wàññi dooleeg Benno Bokk Yaakaar it à tout moment l'observateur naan kon fi mu ne day lamp yi yéex na tàkk te président Macky Sall moo yey nag yéexataal lamp yi moom Sall ngaari lam tooro buur géde mani la dogal waa ci bopp bi waaye jël ko moo jafe la ko waral moom moo di nag buggul jaxasoo benn yoon wala jaxase kàtt gi moom président Macky sàll buggul benn yoon kenn mer xool yey bëx-bëxi fitna daal di jógee ci Benno Bokk Yaakaar Sall bëggul ndax mu ne ku jëlul bu la neexee gedd te gedd sa yaay aye doo ko dégg ndax ay gi moom dafa jeex fegal na turbin nan kon sama laaj ga ñëwati na de ban gouvernement yow président Macky Sall ngay taxawal ci njiitalu nag amadu Ba le point yéene nan man Amadou Ba moomee Pape Modou Fall directeur de l'emploi nee na fukki junni signature di ay ji dina ko koy yéet booba Vox Populi ma ngi may xamal ne Khalifa Babacar Sall ma ngay jokkoor maa jog jokkoor leen waa ye askan wi naan leen du man rek maa fay candidat juróom am na fa tey jii man la ñuy jori xeer naan bi waa ma ne la jàmm ji anamu l'observateur naan man docteur Abdourahmane Diouf as candidat la naan fu senegale nekk ci porox ndoll Sénégal yi naa fa dem wax sama programme dafa ma jot a dem daal daanaka xol bu naqari laa fa jëlee ndax dara amul ci réew mi maanaam daal Sénégal mooy réew moo xam ne mënees na ko méngaleet boo xam ne daanaka amul njiit Le Quotidien Le Quotidien naan kon bu amee ay njiiti day bàyyi nañ sénégalais ak seen bopp xoolal ma rek njàng meeg njàngale mi ci privé bi téeméer boo jël ci l'école privée bi juróom-ñeenti amuñu autorisation juróom-ñaari ay école yoo xam ne préparé wu leen téeméer boo jël fukk ak juróom ñett ci ñi nga xam ne ñoo fay jàngale di fa tàggat amuñu ay diplôme laas naan maan booba Thierno Amadou si directeur général bu APS ma ngay xam le ni bari na ci journaliste yoo xam ne ñi ngi ci média gi waaye bukki lañu yoo xam ne nañu sàngoo deru béy libération naan ñoon nañu wax ci bouteille yu gaz total yi bouteille yu orange yi mi ngi tukkal àddina gannaaw der derkle tuuti kon mu def beneen jëyi tribune yéen kaay jox kàddu waa action citoyenne ñuy xam le ni la ñuy xaar président Macky Sall mooy présidentiel boo xam ne dina libre ñëpp daal di ciy bokk sénégalais yi daal di gis seen bopp ci gile présidentielle mooy dëgg ndax loo ci mënti waxit réew mi moom jaxasoo na jaxasoo goo xam ne kenn amatul droit téye kenn wala nag kenn te naan leen du ngeen fi jaar du ngeen fi jege l'info yéen kaay waxtu woow di ma xamal ne rentrée scolaire bi ca Malicounda Maguette Sène daal dina yàll yaale ay ndongoom daal di leen di gàtte ba maar day taali yemu ca waaye jàngalekat yi sax gis nañ ci seen bopp turbine yéen kaay naan maan moo taxit jàngalekat ya nekk foofee ca Malicounda daal dina ñuy rendre hommage Maguette Sène collectif directeur d'école ya nekk ca Malicounda Tambacounda naan kon atu yàlla sàkk table banc yi ñëw atu yàlla sàkk ay salle de classe yees daal am ci commune bi ay photocopieuse ak ordinateur ak équipement am ci commune bi ay investissement ci wàllu njàng me njàngale mi mi ngi judd ci commune bi kon ek naan moo taxit résultat yu Malicounda atu yàlla sàkk day daal di jëm kanam te fii ak 2030 xel mën naa dal ci ney Malicounda day dina doon ci commune yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci réewum Sénégal Le Soleil yéen kaay naan Bill Gates daal dinay taxawal loo xam ne ñaar fukki milliards dina ko dugal daal di dàq yenn ciy wopp moom président Macky Sall jël kàddu xamal leen ni ay wopp yu ci mel ni cancer mi ngi jaxase la mbaaje Sénégal rawatina nag dénduk Afrique àdduna wërngal këpp adu yàlla sàkk fukk juróom-ñeenti million ci doomu aadama ñu am yees cancer fukki million ci ñoom faatu juróom-ñaari téeméeri junniy Afrique dong dong la ñuy faatoo turbine nankoon waaye ak lu mën a am xel day mënta jóg ci moomi bu so sekk moom moomi dani mi nga xam ne faatoom nga ak tey autorité ba ci sénégalais lambda kilifa diine aada ak cosaan dem riir wuti cité kër góor gi ngir jébbal seen njaal bugaan gay dani mi doon borom këram turbine yéene kaay naan leen amoon na fi ndax dina amati mi dani ca yar waak sell ga ca rafet jikko jaak mbaax ga moomi dani ci yiw gaak tekk gaak teey ga mi dani ci joxoon cër doomu aadama mi dani ci maandu ga mi dani ci fonkoon diineem te di ko jëfee mi dani ci dignité personnalité mi dani ci doyloo boroomam ba xëy fekki ko yéene kaay des média bi ne ma ne la xel moo dul jógati ci moomi bu sa sekk mi ñu wuufal baayam coon